kon mel na ne da dund li ñëpp lii ci loolu la ko waaye loolu lépp rek mhm. ñu ngi delluwaat ci seen coy bi dafa doonoon koo xam ne kii mhm. mbirum faj nit mhm. daf koo itteel daf daan wax ne bu doon jàng tubaab docteur laay jàng li mooy docteur mooy fekk koo xam ne kii. àqali ko naag sabab. mu tudd jaamu yàlla. xamatul ci boppam dara. muy jëf ci moom di jëf ci moom. ci kàttanu suñu borom. ba mu wëlbatikuwaat. yim tële woon jaamu yàlla. dëgg kooku fi mu ne lu mu defati ci àdduna. lu mu defati ci àdduna rek. ka tax. am. yàlla da ko jëy seet. alhamdulilah alhamdulilah kon. bu rëy rëy rëy man naa ne loolu rek moo indi lii si woon lii bu woon lii lu muy dëgg lay doon alhamdulilah alhamdulilah ah, aw aw ci loxol siñam ci sa loxo ñu duppee la Sëriñ Abdul Ahad te ku ne xam na taxawaay bi ñu taxawoon dëkk bi <laughs> ak ni ñu woon dëkk bi yokk mhm. ni ñu dëkk bi set mhm. ni ñu nit ñi nekk ci condition yu baax mhm. loola rek moo indi lii dëgg kon nag ñu ngi leen di sant ci turu sëñ bu mag bi sëñ Moustapha ak njabootu sëñ soy bu gépp ñu ngi leen ci sant bu baax njabootu sëñ bu baax gépp di ko rafetlu ay ñaanal soxna si itam mm-hmm. Mm-hmm. Eh, lim bëgg mm-hmm. te xam ko yàlla ko ci yàlla dimbali lim bëgg te gën ci moom te xam ko yi yàlla ko ci yàlla dimbali ndimbal li gën a am solo nag mooy nekk jullit xaqan nekk taalibu sëñ Touba xaqan boo xam ne bii sëñ Touba dalay dalay pou këriwoo yàlla na ko yàlla defal amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin yàlla na ko fi yàlla gën a jàmm dem gën koo man nii rek la ab taalibe war a di def fépp fu mu xam lu baax rek mhm. mu di ca dugal loxoom. dëgg bañ cee nekk kenn. Mm-hmm. Mm-hmm. bañ cee xaar kenn. Mm-hmm. loolu ku ko doon def rek. léegi dëkk bi mel ni ma la. incha allah incha war a def lii. xay na war nañ koo def faneen war koo def faneen. te mënuñu ko. dëgg la seen loxo jotewul fépp. na loxol taalibe yi nag moom. fu ne lu ne mën nañ ko. nañuy xalaat lu mel nii. dëgg la dëgg buñ defee fànn gi. xoolaat geneen fànn rek. dëgg la dëgg incha allah incha allah incha allah incha allah. jërëjëf jërëjëf.